Bienvenue dans votre émission modèle sur www.caractère.com modèle tay mi ngi wax ci walu coiffure tay ñu ngi ni parcel ñew sét ci wa complexe Torodo Torodo war ñu wax lepp lu jëm ci walu coiffure fi ci banlieue bi nan la démé ñoo ngi complexe Torodo ak madame Baye pour mu wax ñu ci walum coiffure madame Bay tax Torodo waaw asalaamaaleykum eh, jaare gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu leen di dalal jàmm fii si complexe Torodo donc man Tabara Gueye laa tudd madame Mbaye donc complexe eh, Torodo bi ñu ko ubbi depuis 2008 waaw. Mhm. Hmm. depuis 2008 daal nga dugg ci wàllum coiffure. waaw yàgg ya naa si mbirum coiffure boobu dama daan létt kër ga di tegal ñu ñuy greffage sama papa nag moo ko teelu bëgg donc eh, bu mu gaañoo. donc si laa ñëw daal gën ci dugg waaw. ndax yow jaar nga ci école de coiffure yi. waaw jaar naa si école de coiffure jaar naa si école bi ñuy wax Béatrice coiffure complexe mhm. Béa bi nekkoon PA yi. ok donc à partir de loolu daal si nga pare sa diplôme daal di autonome ibbi sa sa sa kii. ndax fii nga jëkkati ji wala am na feneen foo jëkkoon nekk. non non non dama pare dem di def stage si yeneen salon yi ba loxo bu gën a ñëw def naa ay yeneen salon def naa ñaar ba ñetti salon soog tok nak comme njaboot laa te marié laa heure yi liggéey wacc teel a xëy si wacc guddee wàcc aussi mhm. donc ma préfère dal amal sama yëfu bop waaw motax dal tax daal ma ubbi complexe bi métier coiffure man nañ man nga ñu wax lan motax nga choisir ko parce que métier yi na lan motax tax yeeg defaloo jàng nga ñëw né da ngay def coiffure waaw man jang na jang na école ba def BFM mhm. donc mais passion la dama dama ko bëgg mhm. liggéey bi dama ko bëgg donc loolu moo a gën a poussé à ce que ma def coiffure mais jàng naa école quand même. Mm-hmm. coiffure de salon salon de coiffure yi léegi dafa bari. Mm-hmm. est-ce xalaat nga ne di ci génn. waa xam nga li nga bëgg <laughs> doo si xaar leneen te tamit bu yàqoo tey amaana lu may wax sama yenn copines yi ñun tamit joué nañ si benn rôle. joué nañ si benn rôle boo xamante ne nii mooy élèves yi par exemple ñun dañu ubbi ay ay centre de formation. Mm-hmm. élèves dañuy ñëw ben laps de temps suñu mënee tresse arrêté suñu mënee torsaat arrêté dem tok seen kër yi di fayeku ay 1000 francs ay 2000 francs donc lool moy indi tay salon yi doxul nu mu war a mais salon yi ñi ngi sant yalla bu baax baax. wax nga ko né nga élèves yi dañuy ñëw commencé duñu yeggali seen métier dem tijji. Mhm. ñu buñ seetloo tamit ci koñ yi da ngay gis. deux pas trois nga gis benn salon de coiffure mhm. doo dox lu soriwaat nga gisaat salon mhm. loolu tamit est ce que bokkul ci li yàq ñi ngeen di former ndax bari ñu ba mën a yàq marché bi waaw damay naan waaw ak déedéet parce que li ñuy wax rek njàng njàngaan ku mokkal ber sa daara donc ñu mënuñu bañ ñi ñu jàngal di ubi. parce que ñun tamit ba ñuy jàng xëy na loolu lañu bëggoon donc mënuñu bañ loolu daal mais tamit dañuy wax ne ne ku dem bay ubbi boo mënulee nga wut professionnel ndax kon jotul tay ngeen assainir sen euh, milieu bi milieu de la coiffure wa pour ñu assainir ko dina metti jaar parce que dañuy wax fi tay bu suba duñ ci topat du am suivi dal wa ndax am ngeen ay structure yo xamne ñom ñoy manam maanaam ci sen métier mi manam ngeen def association xam hmm. ci ngeen di lekkelo pour liggéey wa am nañ ay association yi bokku man déjà rek man bokk naa ñetti association yo xamante ni de trois façons mèches différents ñetti façon mèche yi fi nekk yëpp man bokk naa ci seen association yi. donc euh, mais ba léegi des na daal pour ñu lëkkaloo pour suñu liggéey jëm kanam. des na ba léegi. bu dee yow lan moo des bu fekkoon donc ñu war a énumérer li des lan la. ba li des euh, bëri na si métier coiffure parce que coiffure dafa des ñun suñu suñu suñu liggéey bi fii dafa des. dafa des lu bëri par rapport ak tey nga dem États-Unis gis nañuy tressé gis nañuy posé greffage gis ñu defee lépp yow. da ngay xamne nek yow amna lu dess kon compétence bi dal nga bëgg wax ni am na lu. waaw am na lu bëri lo xamanteni ya fa dess comme ni ma wax sank rek élève yi dañuy yakamti paré yakamti dem yakamti lepp dal yakamti ubbi yakamti xaalis te compétence bi fay dess esprit jang bi da fay dess ba légui man coiffure daf ma mësa neex rek dama ko yàgg bëgg depuis ma nekké xalé ba légui dama bëgg coiffure. waaw man jang na première. Mhm. di sewe ah man coiffure daal dama xam ne dinaa si réussir tamit. Mhm. am na avenir waaw. Mhm. man formation accélérée laay def am naa fi 10 mois. formation accélérée ñaata un an. Mhm. salon Torodo dafa baax madame Mbaye baax na won nañu baax daal maanaam. waaw lu ma bëggoon daal am naa ko ñëw naa jàngal na ma lu bari fii laa ko xamee. yéen ñi yor salon yi kon war ngeen yéen yéen war a dem comme formation des formateurs maanaam. voilà loolu waxoon nañ ko fi loolu waxoon nañ ko fi ak benn structure ba tënkoon lépp ba maanaam démarrer rek moo desoon mais après amaatul suivi. demaatuñu mais ñun ñii sax yore salon yi amaana war nañ dem di suivraat yeneen formation. junni nga walum ñi nga xamne duñu paré dem mm. ibi salon muy benn ci li nga xamne mën na ray seen métier mais mm-hmm. wax nga tamit ci malum compétence mm-hmm. desul yenen yo xamne ne tamit galankor na seen métier bi waaw yenen yi des euh, fofu rek lañ koy lañ koy lañ koy wat si manam formation bi formation mënoo wax ne ne da ngay jang nga jang 1 an sa loxo setagul nga dem commencer di sololaate fi di defaraate ko dégg rek yow mu ñëkënte dem defal ko man je préfère ñu gën a jàngaat parce que jàng du wees mën nga dem ba am 30 ans 40 ans jàng li nga bëgg jàng mu nekk sa passion nga góorlu si dina dina dina baax daal mais xale yi tey dañuy nekk xale yoo xamante ni dañuy yàkkamti parents yi tamit duñu leen bàyyi des fois parents yi tamit duñu leen bàyyi des fois dañuy gis seen doom seen doom commencé na treize tey commencé na defal kenn chignon commencé na maquillage rek ñu ne sama doom dafa mën daal waaw ubil ko wala kaay jàppale ko nga jël ko sa salon parce que léegi mën na mën na sama koñ moo fay tres ku fay kii moo lay maquillé te yow boo testé xale bi da nga xamante ne que kii dara école la war dem seen seen complexe yi ngeen boole ci euh, école buy formé mhm. ngeen di formé waatal ci biir mhm. ndax ci formation boobu ay nit ay xale ngeen fay yor xëy na mën-mën sax du fa yegg mhm. ndax am ngeen ñu leen di jappalé aussi bien ci autorité mais également ci ay organisme non pour not part moom man bokk ñi ma gis nii ñëpp bon peut-être am na si ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi am ay apprentis mais ñun book man book defoon naa fi benn demande yóbbu ko si benn je veux pas citer de nom yóbbu ko si benn organisme euh, ne serait-ce pour mu jàppale ma 10 élèves yoo xamante ne nii xamoon naa ne que am nañ potentiel bi mën a continuer ba nekk ay ay ay coiffeuses donc dama leen repêché woon jël leen xam ne ñoom ñëpp ils n'ont pas

comprendre nga mais gisuñu pour notre part ba gisuñu kenn koo xamante ne taxaw na tey pour jàppale ñu ñun ñi gisuñu ko même autorité étatique yi parce que ñu ngi ci banlieue bi déperdition mhm. scolaire maanaam ñi ngi xam ne seen njàng yeggul mhm. daf fi bari mhm. ñu nekk jeune boo jeunes yoo xam ne war nañ leen jox ñu am métier pour mën a ëllëg ci seen dund ñu am luñ jariñ seen bopp loolu ba léegi gisuñu ko fii gisuñu fi benn benn benn kii rek bu fi jóg pour bëgg ñoo jàppale ñun paafas yi gisuñu ko ñun ñooy def suñuy suñuy feet ñun bu ñuy feet ñu invité sax amaana sax doo ñëw comprendre nga ñun ñooy def man defoon naa fii lu mel ni benn journée boo xamante ne dama doon sensibiliser jeunes filles yi lu mel ni lu sida ay mariage précoce ay grossesse précoce loolu noonu yëpp lu mel ni ENDA moon jàppale woon indil ñu koo xamante ne da leen doon former di leen jàngal loolu noonu si lan lay mujj parce que tamit boo yoree ay jeunes fii foog nga leen di jàngal àdduna man sama majeure partie ñi ma fi yor ne serait-ce que deux wala trois ñoo dem ba niveau BFM mais ñu des yëpp niveau zéro lañ leen di wax mais ñoo xamanteni ne ñu sax ba CM2 xamuñu jang da xamuñu luy jang donc fi fiñ ma nek boo man dama gëna a Cambrène bi donc sama majeure partie élève tamit si Cambrène bi lañu joggé jógee waaw te ñooñu tamit seen jàng wu non waaw par rapport ak matériel yi ngeen di utiliser mhm. ndax euh, duy cher wala taxi yeeg fayum location mais courant

rapport ak clientèle bi tamit parce que am na ñuy kaas dañuy am clientèle bu difficile ak yooyu yow yan rapport nga seex ak sa clientèle. waaw par par loolu nag moom maa ngi siy sant yàlla bu baax a baax awma fi cliente boo xamante ne nii sonal nañu wala non cliente yi fii ñu ñëpp famille lañ su ñëwee dañuy toog dañuy waxtaan xam des fois dañuy gis cliente boo xamante ne du am xaalis sax danañ la defaral ma su ma ñëwaatee fay miinante nga ak moom munoo ko wax non te moom du xam yow instant boobu yow ba xam ndax yor nga wala yoroo mais tout le temps comme tàmm na di ñëw da nga koy mujj bàyyi defaral ko ba mu baax mu dem heure bu amaatee xaalis mu ñëw mu fay donc ñun rapport boobu la ñu am suñu suñu client ngeen nekk toujours ci seen émission modèle mhm. muy daw sur votre chaîne de télévision dakarrapide.com muy télé boo xam ne sur internet la nekk. Mhm. waa Sénégal dañ koy seetaan mais bitim réew dañ koy xool. Mhm. ndax yow am nga client wala client yoo xam ne bitim réew lañ nekk. am naa client yoo xamante ne ñu ngi ba Paris d'ailleurs maa ngi leen def un petit coucou donc mhm. euh, su demee ba Saint-Denis maa ngi leen fay nuyu sama cliente yooyu ñoom ñëpp su ma demee foofu été dama leen daan xees ay mère lañu mère ay martiniquaise lañ. donc mère bi su ma ñëwee doomam yu góor yi seen jabar yëpp la leen daan ñëw leen sama doom ñëw na. du léttu feneen man lay xaar ba ma ñëw ma léttu ko létti day fa day def ay 3 mois 4 mois si boppam di ko firi parce que nee na ma comme chaque année laay ñëw benn yoon donc sama client yooyu yëpp maa ngi leen di nuyu. kon daal bi ngay jiggaani di ngay dem à l'étranger di jaay li nga xam ne mooy léttu Sénégal foofu. waaw chaque année damay dem foofu waaw. Mhm. damay dem lu mel ni France damay dem lu mel ni Italie aussi. Mhm. dem yóbbu foofu di létt waaw. wax nga ko sank man xamna damay jaar Espagne nuyu walé wa Espagne. Mhm. am dika dama koy nuyu nuyu walé mhm. Papi Diouf. Mhm. ñom tamit nenañ dañuy sétane émission model ndax yoon bi bo démé da ngay jënd matériel euh, coiffure wala di ngay amalé occasion jënd lo xamné bo ñëw fi Sénégal di ngay koy mën di def comme commerce. waaw du ma jënd nak matériel coiffure. parce que lepp amna fi déjà donc da lay diisal da lay sonal des fois mais limuy mëna jënd moy produit yu ndaw ndawani nga xamante dama koy soxla ci bi salon bi. lu mel ni lépp lu jëm si ay saak ay dàll de un lu si des mooy ay produits yu baax lu mel ni ay huile ay bain pour ñu mën def si ay traitement de cheveux mhm. lépp dama ko jënd tamit mais pas matériel boo xamante ni da nga koy mën a def si ay conteneur non mais jënd bagage yoo xamante ne nii di boo ñëwee di nga ko mën a jaay cliente bi mu gaaw daal juge sa loxo mhm. waaw bu fekkoon dafa am loo xamee ne comme nga yor sa benn bagget magique loo war a defaraat seen wàllu euh, métier milieu bi <laughs>

amna ci ngay dégg ñoo xamante nga naan loolu duma ko fa jangal parce que man jàng luñ ma ko woon dama débrouillé ba xamal ko sama bop donc loolu duma ko mësa a sama école man je vois pas ça man dama bëgg sama élève fuñu taxaw suba fan ngeen jangé ñu complexe tor bu boobaa man sama fierté lay doon waaw kon dal yow toro da nga xana moo tax waaw xalpulaar la pire souche xam rek ñun toro dé dañu xaw <laughs> am suñu fierté aussi donc la ngay jël du tuddé lénen mhm. donc dama amone ben tour Je tout bëggoon tuddee sama le salon parce que dama suis seetaan benn film Montecito loolu un hôtel donc ñi fa nekkoon ñëpp dañu pour hôtel bi jëm kanam man entreprise suis ñu def ma salon mais sama jëkkër na ma comme yow toro da nga ma nga wuti ji ay tour yo xamanteni nit ñi après dañuy laccé lan moy loolu donc tuddé ko toro da donc ma top ci ndigalam aussi ma tuddé ko toro da bi mais toro da ba légui ñëpp xam nañ kan moy toro da merci beaucoup madame bay xamna da leen di jox dig dajé ci benen émission mais mhm. bala bobu dinañ gëreum wa complexe toro do ñu mhm. gëreum debbo debbo mhm. madame bay ñom mari ak élève yi ñu fekk ci biir ñu jappalé ñu bañu mëna def seen émission di leen jox dig daje daje ci beneen émission merci aux internautes de www.caractère.com